dal leen ak jàmm mouvement Kolda Debout moo tëgg ñetteelu édition soxal consultation médicale gratuite jagleel ko askan wa yeewoo Kolda ren nag boole nañ ci commune yëpp mu nekk nag ab coppite bu ñu sukkandikoo ci Doura Baldé nga xam ne moo jiite mouvement Kolda Debout. coppite bi ñu indi mooy bi ñu defee première édition gis ci rush maanaam nit ñi niñ fi bëree defaat encore deuxième édition gis gi nit ñi gën a yokk dañoo toog réfléchir càmbar xam ne liñ koy faral di organiser ci biir commune bi kese kese mooy tax ñëpp di jóge fu di ñëw bi yoon nag ñu jokkoo ak suñuy équipe yu nekk dans les autres communes jokkoo ak mairie yi ak préfecture yi ñu ne leen dem leen communiquer ci seen i commune ne nit ñi nañu toog xaar ñu foofu ñu fekki leen pour que médecins yi am jot mën a liggéey ni mu waree mën a càmbar yaramu nit ñi xool nan la ñuy indee ay saafara ci jafe-jafe ak problème wér yaram yu ñu am stratégie boobu mooy coppite bi nga xamante ni moo ci gën a fës waaye it yokk nañu ay spécialité façon spécialité bu nekk lu mel ni dermatologie xam naa ni c'est la ñu koy indi renforcer nañu gériatrie indi nañu gynécologue obstétricien ak yeneen spécialité yi nga xamante ay ORL pour ñu gën a jàppale population yi. ci consultation médicale gratuite yooyu daal nañu mobiliser lu toll ci juróom fukki médecin mu am ci ñoom ay spécialistes yoo xam ne diwaan bi da ko soxla lool jot nañu saytu yaramu juróomi téeméer ak juróom fukki patient man la Macoumba Fall gynécologue obstétricien di leen wax ne journée yi am na njëriñ parce que indi nañ fi différentes spécialités pédiatrie médecine gériatrie gynéco nañ ne ci patient yi ñu fi jot a nga xamante ni dermatologue maanaam mooy ñi nga ñu ngi faj wàllum der loo xamante jafe na lool ci Kolda benn lañ fi amoon am nañ ci vingt yi nga xamante ni yi ñoo leen gis ñu gis ne bëri na ay infertilité yi nga xamante ñi ngi am ci Kolda mais ñàkk suivi bi moo waral muy gën a gis nañ fukki patient yi nga xamante ni ci wàllu ORL xale yi la ñu gis leen fii nii ñaar fukki patient yi nga xamante xamante cardiologie la cest wàllum xol cœur bi gis nañ aussi 300 patients yoo xamante ni ñi faj wàllum bët xool nañ leen ñi ci war a jox ay lunettes jox nañ ay lunettes ñu gis ne aussi am nañ fi ay urgence yi nga xamante dajale nañ ko fi comme ñu gis leen consultation yi jot leen stabiliser fii nii ba mu baax ñu soog leen envoyé ci différents centres de santé yi nga xamante ñoo fi nekk di gërëm aussi Abdourahmane Doura bi nga xamante bi mooy troisième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 thank you Bonjour chers auditeurs, le mouvement Kolda Debout a organisé sa troisième édition de consultation gratuite avec des innovations pour soulager les populations. Cette année, toutes les communes environnantes de la commune de Kolda seront servies selon Doura à la tête du mouvement. On l'écoute au micro de Amadou Diata. On est à notre troisième édition de la campagne appelée en Peul et Tchelirede au niveau de la commune de Kolda à la première édition, à la deuxième édition, deuxième nous avons vécu en termes de rush, nous avons jugé utile de changer de méthode de travail. Parce que qu'est-ce qui se passait C'est que tout le monde se réunissait à Kolda. Toutes les autres communes, tous les autres départements ou toutes les autres, je dirais, régions convergeaient à Kolda. L'année dernière, on a touché plus de personnes pour cette campagne. Cette année, qu'est-ce qu'on dit Toutes les communes environnantes vont recevoir l'équipe médicale chez l'ensemble des communes qui sont les communes immédiates et environnantes de la commune de Kolda, on organise la même chose chez ces communes-là. Pour la réussite de ces consultations gratuites, 50 médecins ont été mobilisés avec des spécialités dont la région a fort besoin. 550 patients ont été consultés, affirme le médecin Maoundé Gao, président de l'association Kolda Assistance Médicale. Nous avons pu quand même réunir plus de 50 médecins venant de dans toutes les régions du Sénégal, mais aussi de l'Afrique. Parce que dans l'équipe, nous avons des Tunisiens, des Marocains, mais aussi des Gabonais. Nous avons des spécialistes tels que la dermatologie. Vous n'êtes pas sans savoir, dans toute la région de Kolda, nous n'avons pas un seul dermatologue. Et c'est vraiment déplorable. Donc aujourd'hui, nous avons pu réunir des dermatos à Kolda et qui règlent des problèmes. Mais aussi, nous avons des spécialités comme la gériatrie qui prend en charge les maladies et les syndromes gériatriques qui sont des problèmes de santé publique. Et dans toute la région a dans les réseaux sociaux, il n'y en avait pas. Donc nous avons pu venir avec un interne en gynécologie. En tout cas, pour ceux qui sont dans le domaine médical, quand on parle de spécialistes et quand on parle des internes en gynéco, je pense qu'on parle de, la crème, de la crème. Et nous avons un ici, assisté par un médecin généraliste, mais aussi la cardiologie et les autres spécialités telles que l'ORL. Nous sommes venus avec un DES en ORL, donc qui sont